Touba Mbacké la délégation bi bàyyee ko ngir fekki xalif de des Baye Fall Serigne di Fall moom Serigne Modou Mbenda ca Njaareem dem gi nag sabab gi mooy cant maam Cheikh Ibrahima Fall gi nga xam ni at mu jot taalibe yi nga xam ne ñoo nekkee ca Philadelphie ca réewum états uni dañ ko fay amal ci njiital sëriñ Ahmadou Mbeng ànd kook mbooleem Baay Faal yi di bis boo xam ne sëriñ Mohamed Diop moom moo ko sosoon ginnaaw cant maam Cheikh Ibrahima Fall googu addiya ji nga xam ne moom lañ fay jotoon a dajale mu toll ci juróom-ñetti million ak téeméeri junniy teg moom lañ ñëwoon doon jébbal si xalifa général des Baay Faal ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo defee at mu jot bi ñuy ñëw nag ñu ànd ak sëriñ Assane Fall moom sëriñ Modou Aminta Fall mi nga xam ni moo jébbal addiya ji sëriñ bi leeral ko lépp loo xam ni moo jëm ci liggéey bi nga xam ni moo bàyyeekoo ca Philadelphie ginnaaw cant maam Cheikh Ibrahima Fall ga. juróom-ñetti million la. juróom-ñetti million. waaw juróom ak téeméeri junni ak téeméeri junni. ak ñaari junni ak ñeenti téeméer. waaw waaw waaw mais <laughs> waaw ah, bi nag mooy ba mooy mooy biñ fi ñëwoon daaw ci kanamu sëñ bi doon ko jëbal si moo la ñu indiwaat ren jii muy sant maam Serigne Fall goo xam ne dañu ko def ca dëkk bi ñuy wax Touba Philadelphie ci Amérique njiit la nag mi ngi nii di Ahmadou Mbeng mii ah, waaye mu def mu def ko ci ndigalal sëñ Mohamed Diop mii sëñ Mohamed mii moo moo moo moo moo sosoon bis ba ñoo daa bëgg ñu taxawal fi bisu maam Serigne Fall boo xam ne sant seew lay doon waaye daa bëgg bu ñu ko defeet ñu bañ koy def cant goo xam ne dañu fi dajal dajaloo rek jël am noose ko baa ñu seetlee xaalis bi nit ñi bu ëllëgee ñu dañ dañ sant ne loolu du sant seew ku sant seew da ngay fex ba ki fi nekkal seew la boo ko santee ba noppee ni ko lii laa fa jëlee mi ngi nii muy àddi ñu fa dajale du ab daayira am du du mën naa moo xamante ni bii fu Baay Faal li ci rek Baay Murit baab julit woo nañ la ci am na ñoo xam ne Sénégal gii la seen addi yi jógee sax di fa dem. sigaret ji ah, euh, kii ñu àndal ci la bokk. Ousseynou Mbaye mii. Ousseynou Mbaye. yi mm, bi ñu moo tax daaw na dajaloon nañ téeméer juróom-ñetti million dajaloon daaw indi ko indi ko sëñ bi. waaw la ñu di woon daaw. waaw ren ji yokk nañ ko ba tegaat ci téeméer junni. ak fukki junni ñaar. ak ñeenti téeméer. kon xam naa ni eh, li ñu tànki sëñ bi mu tànk ginnaaw tànk kanam dëgg la. yokk nañ ba xam ne yokk nañ. di ñaan nag sëñ bi ñaanu murid yi ba at mu jot ñu gën koo man sëñ bi tam des fi ba at mu jot ñu fekk ko fi di ko jëbal ndax liggéeyu maam Serigne Fall boo xam ne bi kat bu ñu sañoon waxtu ñëwee fekk la fi. waaye bu ñu sañoon lu ñu def ren bu réew ñu def lu gopp kon jëwriñ yaa ngi nii. waaw waa waa Amérique yëpp nag ñoom la ci woo. Hmm. daayira Baye Fall yi nekk New York ya nekk Washington Baltimore ak dëkk bi mu nekk di Tuubaa Philadelphie am fa ku ñuy wax suñu Mbàkke Cuun mooy njiit la ñoom ñëpp ñoo àndoo takk seen ndigg ba dajee li indi ko sëriñ bi ah. yaakaar naa ne lii yombul ci eh, ci guddi gu ñu defal seero yaakaar naa yéen a ngi fi waaye bëriwul bëriwul am guddi gu ñu defal maam Seex Ibra Faal dañuy sant Seex Ibra Faal fenn ci réew mi ba bitim réew dajee dafa juróom-ñetti million téeméer ju indi ko sëriñ bi loolu yombul kon neen sëñ bi dimbali na ba daray seytaane bu ñu ci rax. waaw neen sëñ bi dimbali ba lépp lu ci def ren bu dee nii mën lu këpp waaw ñëpp ñu am pasteef def ci am ci am pas-pasu def ceet et. waaw sama borom xéewal leen bañ mën ciy def. moom mi nga xam ne moo ko jiiteet nañu nañu ko sëñ bi téyal bu baax a baax. bu mu laal suuf mukk bu ko dara dogalee. waaw na àgg fi mu fi mu bëgg àgg. li yéenam Serigne Fall tamit naka man waxtu ne. Hmm. ba waxtu wi ñëwee rek sëñ bi dana xam ne Amadou ñëwaat na. waaw ren jigal jàll na waaye ma ngay waajal diwen dañoo bëggaat nag li li muy dagaan sëñ mooy buñ déwénee buy ñëw. Hmm. na fekk sëriñ bi. ci ba ko fekkee lii mu indi nëpp fopp li mu indi li mu loolu ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi koy ñaan ci sa sa barke maam ji. waaw Seew Faal xam ne moom bëgg liggéey Seew rek moo moo moo moo a lii Faal. waaye lépp nag ci kii ci kii rek la bàyyi ko. ndax moom mi moo ko sos jël alam def ci ne ko bu matul ma mottali. yaakaar naa ne ci téeméer junni lañ tàmbali woon ba mu egsi fii tey. kon moom mii nañu ko si ñaan lu baax suñu Mouhamed mii. xamee ko xam naa ne sëñ bi xam na ko. waaw nañ ko sëñ bi baax a baax. ci ñaanal muur yéen nekk Amérique ñëpp nag. ak yi nekk Sénégal ba lépp lu ci waay def daal na xam ni. bis ne tey bu doon dërëm la Cheikh Fall jot na ci yaa fi Cheikh jot nga ci. waaw jërëjëf moom moom sëñ Aysane sa doom ji sa doom ji. ci moom laay wax moom li waroon wax wax na ko waaye sa waaye sa doom ji nag. sa doom ji nga xamee ni. dala faa nekkal. te yàqalul kenn dara. di defaral Cheikh Ibra Fall maamam liggéey bu nuy liggéey ci àdduna ci Cheikh Ibra Fall ci yow la jëm ci yow la jóge liggéey boobu mu lay liggéeyal ba takk ko teg ko sa loxo ba ku ci dugal dërëm xam ne dugg na ci loxo Cheikh Ibra Fall moom mii xam naa su ko sëñ bi dimbalee dëbb ko kattan musal ko ci ndog yi moom dina liggéey moom mii waaw loolu ñu koy dagat sëñ bi ndax loolu soo amee rek li ci yëpp ci kanam la alhamdulilah alhamdulilah Fall alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah Fall ku ñuy wax sëñ Assane Dieng it ñoo waroon ànd waaye moom sëñ Assane su ñëwee ñëpp ñëwaale na ñëpp waaw alhamdulilah alhamdulilah Fall alhamdulilah. ci général des Baye Fall Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou sant na leen bu baax a baax gërëm leen ci pasteef gi ak jëf jure ji nga xam ni jëf nañ ko fii ci kër maam Cheikh ma Fall te lépp di tàbbi ci biir liggéeyal Serigne Touba. baax. waaw liggéey bi ngeen liggéey. nee liggéey bu am doole la. ndax nee na liggéey. di liggéeyal Serigne Touba. di jox si Ibrahima Fall. lépp nee na lépp lu baax la. nee na lu baax nag boo ko dee def. dangay am lu baax. jërëjëf maa jërëjëf mi ngi leen di sant. maa leen di gërëm. mi ngi leen di gërëm. ñaanal. mi ngi leen di ñaanal. fan wu gudd. ànd ak mu yàlla musal leen ci cat. mais lépp lu leen nar a gàllankoor. yàlla na ko fi suñu borom bi yàlla jële jërë ngeen jëf taar kàlla <laughs> jërëjëf. waaw. bi leen sëriñ bi ñaanalee. ñoom jëwriñ nii sant nañ bu baax a baax mbooleem taalibe yi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi nga xam ne moom lañ doon indil xalif général des Baye Fall sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda di teew fii ci njaareem ci kër sëñ Amdi Fall moom sëriñ Modou mbend Fall mu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ànd nag ñëw fii ci turu Touba Philadelphia ci ànd bi ñu jiital ci Chérif Assane Fall moom Serigne Modou Aminata Fall ànd ak Serigne Mouhamed Diop ñépp xam ko di jàmbaari maam Cheikh Ibrahima Fall ànd ak sëriñ Moustapha Diop mi nga xamante ne mu nga ca New York bokk ca daayira Mika ba ànd ak sëriñ amadu Mbeng mi nga xamante ne nag bu ñuy wax wax ji ku gis nen ne nen a ngi sëñ Amadou mii moo waral liggéey ba moom la ko sëñ Ahmed Diop teg ci loxoom ñu ànd di ko doxal kon nag bu ko defee dañuy jox sëriñ Moustapha Diop mi nga xamante ne moo fi teewal waa New York ñu jox ko kàddu gi mu sànni ci ay kàddu su noppee ñu jox Serigne Amadou Mbeng mu sànni ci ay kàddu gërëm mbooloo ma mu àndandool di ko defal ca Amérique. nag yàlla dogal na ñu ngi fii tey jii ci njaareem ñëw ziare si woon maam Cheikh Ibrahima Fall ànd ak suñu kilifa nag. muy sëñ asan ak sëñ Mouhamed ak ñu nu àndal ñëpp li waral ziyaare bi nag moo di liggéey boo xam ne ñu ngi ko doon liggéey ca Touba Philadelphie ki ko jiite di sëñ Amadou Mbeng mi yàgg ko def te saa soo xamee ne biñ ko ko dénkee ba léegi day jëm kanam waaye wàññeekul benn yoon muy jàmbar joo xam ne ku ne jëratul ñu koy wax ne ku ne xam na liggéey ba mu fay liggéey ndax kenn ku ne xam ne genn guddi nga génn ci million millions 500 yu tegal xam ne loolu ak mënu ko weesu te li ci ëpp ñaqam la woo ci mbokki taalibe yi fa nekk yëpp nag ñu àndandoo ceeg moom muy mboolem état yi nga xam ne ñoo wër dëkk ba muy New York Washington ak ak mboolem état yëpp rek fu fa Baay Faal nekk rek wala murid rek boo xam ne bëgg nga Sëriñ waa bëgg Cheikh Ibra Fall nangoo liggéey nangoo joxe sa xarit ci nga bokk kon nag loolu moo nu indiwoon woon fii ñuy sant yàlla bu baax ndax kenn ku ne dégg nga kàddu yi nga xam ne sëñ bi rotal na ko sanq mu dal xel lool ba tax kenn ku ne war nga cee jaajuwaat boo ci daawul teew wala daawoo ci joxe sa ñaq sax nga jéem koo fexe di ci dugg tàbbal saw ñaq ndax boo mënta ñëwee ndax jot moom yombul waaye soo mënta ñëwee nga fexe ba sa ñaq tàbbi ca ndax lu xas ba dugg ci loxo Cheikh Rafal moom ku ne xam na ne Cheikhul Xadim jot na ci kon nag ñu ngi woo ñëpp rek dinañ xamal ne daal liggéey baa nii moom kenn ku ci noo ci duggee rek noonu la ciy tax ndax liggéey denc la boo xam ne bu ëllëgee boo àggee da nga xam da nga ko xeeb Sëriñ Tuubaa moom kenn ku ne xam na ne am na fay te li nu war wan Serigne Touba ban mën a jëriñu ci moom nag ku nag xam nga ko muy maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla dogal nag danoo nekkoon ci ci goo xam ne nii kenn ku ne xam na li nga xam ne ni moom ni mu doon doxee bay nampatal na ci lool muy Cheikh moo Aminta Fall leera mi ngi nii toog ak sëñ Mouhamed mii nga xam ne kenn ku ne xam na ne digganteem ak sëñ bi diir bi li fi sëñ bi nekk lépp lépp léppam sëñ bi la woon daraam nag bëggul nag daraam feeñ fenn wala muy dugg ci leen loko moo sam moo sosoon bis bi def ci ni alalam def ci léppam ak ak ak ay ndigalam ba tax mu si fii dëgg la moom li muy def moom daf koy def ngir yàlla ak sëriñ bi bëggul dara feeñ ci wala ñu ko ci tudd ci lenn waaye nag dafa mënta ñàkk ndax jëf ju baax moom ku ko def rek des na ko wax kon nag ñu ngi ñaan sa borom mu guddal seen fan ñoom ñoom ñii fi teew di Cheikh Assane di suñu sëriñ di suñu xarit ak say Mohamed mi nga xam ne tamit ween yi ñuy ñaan yàlla suñu borom guddal seen i fan te wéral leen te kàttal na leen ban mën a ànd liggéey bi ba faaw rek di sant sañ amadu mii nga xam nag moom moom cant ko moom dañ koy bàyyi Serigne Touba ak Cheikh Rafal mi nga xam ne moo tax muy liggéey waaye daal li gën a ëpp solo daal mooy mboolee mi nga taalib yi nekk biir Amérique ndegam waa Sénégal ñooy jëp seen ñàq di ko ci tàbbal rawatina nag koo xam ne yaa ngi biir Amérique war nga cee ñu def te te dara tàbbiwu ci loolu moom moom moom dalul xel kon nag ñu ngi woo ñëpp dina xamal ne bis bi indi nañ eh, bi mu toll ci 8 millions 500 63 mille ñu fas yéene bu ëllëgee nag bu déwénatee mu ëpp loolu ndax ba bañ koy soog a tàmbali kat di jébbali 500000 ba agsi fii kenn ku ne xam nga nag mbir mi mi ngi dem mi ngi jëm ci kanam kon nag ñoo nga ñaan ci doole maam Cheikh Ibrahima Fall mboolem koo xam ne yaa ngi di Baay Fall wala murit wala koo xam ne ku gëm yàlla suñu borom la rek liggéey bii nga jéem cee góorgóorlu tàbbal si sa ñaq ndax sa njariñ dong la lépp lu fu waaye def compte banque la boo xam ne boo demee ëllëg fekkaat ko fa kon nag ñu ngi ziarewaat ñëpp di jéggluwaat bu baax a baax nag xam naa kàddu yi dañoo bett waaye ñu ngi jégalu ñëpp di ziare ñëpp di ñaan yàlla sama borom defal na jàmm ak xéwal mbokk jullit yi mbokk taalibe yi man la seen mbokk amul mbay nga doon nuyoo doon ziar naa ne kàddu yi moom day nekk kàddu sant ak kàddu soññe moom damay xam naa ne sant euh, sëñ Assane ak sëñ Mouhamed ñoom ñi nga xam ne ñoom lépp ñooma waaw di sant tamit waa Touba Philadelphie moom am na si ñoo ne il faut ma tudd seen tur ñoom Dame Basel ak Ëmma ak ak Faye ñoo il faut ma tudd seen tur nag di sant waa Baltimore waa Philadelphie ñëpp daal moom daal bàyyiwuñu kenn addé bi nag moom mi ngi toll si euh, huit million cinq cent huit millions cinq cent soixante mille ren moom damaa bëgg tamit xam naa ne mbir mi neuf millions lay doon moom fas ne nañ ko tàmbali liggéey bi léegi léegi léegi léegi kàddu yi daal mi ngi noonu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex jërëjëf.